jumaa ji jàkka bi ne 22 bi boo jógee kër ñoom Saliou boo jógee kër ñoom Saliou asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi am nañu mbégte tey ji altine fukki fan ak juróom-ñett ci weeru tam xarit ci hijriya di atum jullit dëppoo ak juróom-ñeenti fan ci weeru octobre 2017 ñu am mbégte saa yu nekk niñ baaxoo di ànd ak yéen ci altine bu jot ci seen émission Serigne Touba ak ñuy am mbégte feggawaat ak yéen ci niñ ko baaxoo di di defee saa bu ñu jàkkaarloo ak yéen mbégteem yaatu la ñuy am ngir euh, jox leen li nga xam ni moom mooy euh, émission yi émission bii niñ ko baaxoo di tërale ci waxtaane ay thèmes yu am solo di ci ànd ak ay boroomi xam-xam yoo xam ni seen xam-xam day wa màcc ci fànn bu ñu mel ñuy sant yàlla bu baax di ñaanal njabootu Sëñ Tuubaa gépp jiital ci Seex seen Muxtaar di ñaan suñu borom gën ko fee bàyyi mu yàgg lool te ànd ak wér ba lépp loo xam ne naaral na ko lislaam rawatina yoonu sëriñ bi mu àggale ko fu kawe njortam te lépp mu ànd ko ak noonu bu nu tuddee Cheikh Sidi Moukhtar tudd nañu lislaam bi yëpp bàyyiwuñu kenn képp koo xam ni ab jullit nga ak foo mën a nekk. moo xam ne ci biir réew mi la am ci bitim réew waaye képp koo xam ne rek lislaam tax na koo jóg ñu ngi koy ñaanal tawféex fa mu nekk ak jàmm waaye duñu fàtte ñi nga xam ne saa su nekk dañuy topp. Euh, te di safoo télévision Mafatihul mu ñor leen lool euh, lépp lu ci am ñu koy teewlu di ko di ko safoo saa su nekk du ñu fàtte it sunu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci ay jafe-jafe saa yu nekk xëy na jamono ji euh, jamono ji ci gannaaw moo gën a fës ci wàllu actualité ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci Birmanie waaye teewul ba tey ñi ngi ci ay jafe-jafe ñooñu ñu ngi ñaan suñu borom defal leen kàttan ak tawfeex ba lépp loo xam ni ñi ngi koy e, bëgg yàlla defal leen ci e, defal leen ci tawfeex maanaam yàlla nañu yàlla yàlla nañu yàlla taxaw ba ñu am jàmm jàmm dellu siwaat ci seen biir ñoom ñoom ñu nga xam ne ñooy suñu mbokk jullit yooyu fàttewuñu it ñi nga xam ne ñoo nekk ci lalu hôpital yi mbaa ñu tëdd tawat nekk seen kër ñi ngi ñaan suñu borom yëkkati leen delloo leen ci biir njaboot gi ba lépp loo xam ni seen yëngu-yëngu la woon ñu mën ko àggale ñi nga xam ne it ñoom la caabi féete gannaaw eh, ñi ngi ñaan suñu borom génn leen ci jafe-jafe yooyu nga xam ne nekk nañ ci tey nag mbokk yi dañ fee am sunu gan goo xam ni jàngalekat la di Serigne Abdoul Ahad Kandji moom moom la ñu bëgg a àndal waxtaan wi tey jii bëgg a waxtaane eh, jëmm ju tedd joo xam ne war nañ ko fàttaliku bis ni ki suba ca Touba di cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ni moo njëkk a wuutu cheikhul Khadim incha allah télévision Mafatihul Bichri dana ci ànd ak yéen ci bépp programme boo xam ni te yaakaar naa fi mu nekk nii sax tàmbali na ndax jot ngeen a seetaan eh, conférence bi nga xam ni seeti cheikh Mouhamadul Moustapha yi doon nañ ko def ni ki démb kon programme yi ci des yëpp na ngeen ci xaar seen télévision Mafatihul Bichri dana def direct ci foofu yi di dëkk bu sell ba di Touba incha allah. kon sëñ Abdou Lahad ñu ngi lay nuyu di am mbégte ci teew gi nga teew ci jataay bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñu ñuy seetaan ahoudu billahi bismillahi inna waliyallah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulilahi wasalla abada ala alladi bi lana alhuda bada asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maam Thierno ñu ngi lay delloo nuyoo di nuyoo mboolem ñi nga xam ne ñooy teewlu télé bi di ñaan yàlla wa taala fépp fu tele di yegg rek mu yegg fa di siyaare mbooleem ñi nga xam ne ñooy mbokki jullit ñi ak mbokki taalibe yi di siyaare waa fu mu jógee waa jàkka ja di siyaare muy wen dë ñëpp maa ngi siyaare mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñoonu yëgu di delloo kàddu gi jërëjëf sëriñ Abdoul Ahad moom mi jàngalekat la waaye it imam la ci fi mu nekk di parcelle diñ euh, ko junjee woon ci ndorteelu waxtaan wi mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha Karim la ñu bëgg a waxtaane moom nag ñu bari xëy na danañ dégg euh, ni moo wuut njëkk a wuutu sëñ Tuubaa rek waaye xëy na xam-xam bi ñu war a xam ci moom dëgg-dëgg des na euh, jàmbaar ju mel noonu ci nit ku ñuul euh, def na mbir yoo xam ni mësee fu ñu gis nit ku ñuul ku ko def ci taxawaayam ci fullaam ci pësseefam ci mën a maslaam ci ñim jëfandikoo mën xelum boppam ba réussir yi nga xam ni dénkoon nañ ko ko te mu jafe woon lool ci jamono boobu sëñ Abdou Lahad tey jii ñu bëgg bala ñoo ñëw ci yenn euh, tomb yooyu may wax sax ñu njëkke rek ci ak gën ak àddunaam moom Cheikh Mamadou Moustapha ak ay ñaari waajuram bismillah asalaamaaleykum sëriñ mu Moustapha waxtaane ko lu rëy la ci yàlla inda inda zikri saalihiina tanzilu rahma dañu wax ni saa woo dee waxtaane nit yàlla yi yërmande yàlla day wàcc foofu rawatina ku toll ni Serigne Modou Moustapha nga xam ne Serigne Modou Moustapha ci fànn yëpp bu la neexee nga wax ni raw na ca dafa doon sëriñ Touba ci xam-xam doon ko ci wilaaya doon ko ci jikko. Mm-hmm. mu Serigne Touba nag rek mooy sa waajur dafa doyoon ndax ku ne xam na ni Serigne Touba bi mu ñëwee suñu borom subhaanahu wa dafa wax ni yàlla moo ko tuddee samayta nii xataan bi abdikal xadim yow yàlla yaa ma tuddee ci lu dagg sikk yaa ma tuddee sa jaam bi nga xam ne mooy liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wa liggéey boobu nag ba yonte bi sallallahu alayhi wa wala ba àdduna sosoo ba jamono jii amul kenn ku ko yàlla di yenn te bari woo ñoo xam ne daan la songu gi gàllankoor la bëre bu mag lay doon tàmbalee ko ci aadama ak iblis ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa ay noonam ba ci sëriñ Touba ak tubaab yi ci tënk rek ñu daj ci lu ne waaye ba mu fa jógee kii nga xam ne moom lañ may laaj kañ lañ gane àdduna mu donn ko balaa ñu koy doon dañu dellu ginnaaw tuuti rek waxtaan kan mooy wajuram monsieur Ahmadul Xadim buñ ca jógee ñu wax tuuti ci kan mooy wajuram wu jigéen xëy na loolu dana tax yëf yi gën a leer tuuti Cheikhul Xadim dafa nekk kenn koo xam ni dafa ñëw nekk mu jaddit mu jaddit mooy koo xam ne dafa ñëw ngir yeesal si yoonu lislaam bi lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu boo demee ci saxiix Tirmisi yi da nga ko ca fekk yonent bi sallallahu alayhi nee na bépp téeméeri at bopp téeméeri at bu ne yàlla dana yebal koo xam day yeesal si diiney lislaam sëriñ Touba nag ñëw gën a fees ci mboolem ñi nga xam ne jaaroon nañ di yeesal diiney lislaam mu taxawal liggéey boobu moom sëriñ Touba ci ba mu ganee adduna ci anu atum charaa mm-hmm. atum charaa na ko boroom xam-xam ba waxee xat wuli la xadiimu man xat charaa shariatal muxtaari ama charaa mm-hmm. suma madaali li rabbihi ama sumuus wa mm-hmm. umruhu aynun wa daalun ko sumuus mu gane àdduna atum charaa charaa mooy charaa la ku mu ne diin boo demee ci alxuraan yàlla dafa tuddee charia ni maa maa leen yoonalal diine da nga xam ne joxoon naa ko Moussa jox ko Isa jox ko yonent yi jox ko yonent bu sallallahu alayhi wa sallam bi ci gane at boobu la gane la gane àdduna muy mm-hmm. mille deux cent soixante dix mm-hmm. kon loolu li muy tekki mooy bu ñëwee ci ñi gaddu lislaam lay doon ci ñi war a yeesalte lislaam ci war a yeesalte lislaam mm-hmm. ci ñooñu la war a bokk kon loolu mo moo tekki ni ama mu am fi ay at yu bari yoo xam ne yëpp daf ko jëfandikoo ci diggante yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn ko bi nga xamee ni nag waajuram nekk na fi mu jàngee ci moom xam-xam ak ci ay nijaayam ak i ma ak i maamam ba jee bokk ci borom xam-xam yi nga xam ni kenn weranteetu seenu xam-xam mu fasal yéene loolu yëpp mu liggéeyal ko ci lislaam mu yëpp mu nekk ci daara yi juróom di jàngale nekk fa ba juróom génn àdduna ci tënk mu continuer lu néew daal daara ja ci njàngale ci fànn yëpp ci tarif di jàngale di jàngale ci mboolem xeeti xam-xam yi ba benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko ni rabbi ni ko rabbi asxaabaka bil himma walaa turabbihim bi darsi na nga yar sa taalibe yi ci li ñu tuddee himmate mooy yitte waaye bu leen yar ci njàng kese mu daal di commencé woote yoon woo woowu nga xam ni moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal te moo ni yàlla digal wala yàlla daf maa digal xamal ma ni yow wéeruwaay nga xetlikaay ga ku bëgg yu adduna ak alaxira na ne añoo ànd ak yow mu woote wootu yoonu jaayante ñu bëri jaayante waaye comme ñu bëri xamuñu woon loolu ñu bëri it noo jaayante waaye mu continuer ci dëgër ga na nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu wootee di islam bi gars yi defee délégation ñëw nii bu fekkee dafa bëgg alal nan ko ko jox lu mu bëgg rek nan na wax ñu jox ñu taxaw ca defal ko ko te mu bàyyi lii muy woote yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam leen tontu woon ca mooy bu fekkoon dañoo jël jant bi teg ko ci sama wetu gi jël weer yu teg ko sama ko wetu càmmoñ gi mu di ma lakk du tax ma bàyyi li may woote sëriñ bu hmm. continuer dëgër ca la mu woote ba résultat ba am waaye ni ma la ko waxee woon ca tàmbali ba rek kenn du yenu yen boobu te bariwul ay noon tayewul nag noon yu bari nekk di ko ruuxale ak tubaab yi ba mu ànd ak tubaab yi léegi bi mu fa jógee nag kooku nga xam ne moo ko doon muy sëriñ Mouhamadul Moustapha moom mi ngi gane àdduna mille six cent ci gàddaay gi hmm. dépôt juróom-ñeenti septembre mille mille trois cent six ci mhm. gàddaay gi mhm. mi ngi judd ci atum mille trois cent six ci gàddaay gi mhm. dëppoog juróom-ñeenti fan ci weeru septembre dëppook mille huit cent quatre-vingt-huit ci miladiye mooy juddug yonent yàlla Isa alayhi salaam am nañu wax ni Mbàkke la am ñu wax ni mi ngi juddoo Tuubaa waaye li gën a wér mooy Daaru Salaam la gane àdduna ndax sëriñ bi gannaaw ba mu jógee Jolof ñoo Mbàkke toxoo fa ñëw sanc sanc Daaru Salaam suñu borom subhaanahu wa taala wax xamal ko Touba ak wan ko leer gi mu nekk di wër Touba ci waxtu woowu la mu Modou Moustapha gane adduna. fekk mm-hmm. ña nga sanc Daaru Salaam. mooy mooy njëlbéenu 1888. waaw mooy mooy mille. mille trois cent six mille huit cent quatre vingt huit. moom. Mm-hmm. bi sëriñ bi di wër Touba mi ngi tomboog mille huit cent quatre vingt sept. Mm-hmm. diggante bi nga xamee ni ci lay wër Touba ci at moomu nga xam ne man wax nañ ni sax ci la Touba feeñ waaye jotaguñu faa ne fekk ba ña nga Daaru Salaam ci mm-hmm. boobu la sëriñ Moudou Mouhamadou Moustapha gën a mooy mm-hmm. mi mille huit a ati Touba bi moom day faral di wute waaye li gën a wér daal mooy mooy mille trois cent six mille mm-hmm. a adduna bi mu gënee adduna it moom sëriñ Moudou Moustapha ca Daaru Salaam mbokkam mu ñuy wax sëriñ fallu moomit it ca la gënee adduna waaye ñoom ñaar am nañ différence kii mi ngi jud mi ngi gane àdduna ci muharram mhm. weeru tamxarit ci ñetti fan ya fan yi ci ñetti fan ya ñetti fan yi ci ñetti fan tamxarit ya la gane àdduna mhm. bis ban nga nga nga xam ne moom lañ koy ci mhm. samay samay nopp bis ba ñu koy tudd mu tombeeg bisub tamxarit mu fukki fan yi tamxarit ya sëriñ Mouhamadul Fadil gane àdduna le vingt sept rajab ci weeru rajab ñaar fukki fan ak juróom ñaar ñoom juróom benn weer lañu rawantee juróom benn weer la ñu rawantee ak fukki fan ak ak juróom ñaar bi mu gënee adduna it wax naa la way juróom moo nekkoon mu jaddit bu mag boobu moo nekkoon nitu yàlla boobu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gàlloon mbooleem yeesal yoonam wi bi mu ko ko gàllee it mu doxal ko doxalin woo xam ne wu jéggi dayoo la ba mu fi jógee am na benn bis ci tarbiya gi mu ko doon tarbiya mm-hmm. mu am benn bunt boo xam ne dafa am lu mu ko kalee gégee ko ko daal di koy woo ne ko jot li ma ko mu ñëw xam ne bu yëkkatee loolee buntu bi daal moom sëñ Modou Moustapha sëñ Touba ko woo ni ko buntu bi mm-hmm. li ma lee satalagee mm-hmm. ma gege buntu bi mu ñëw xam ne boo gé boo ko àndalee dana daanu mu daal di ko fay bàyyi dem wuti leneen loo xam ne moom la remplacé mooy mooy lim kale bu ko kale mm-hmm. di ko fay bàyyi wuti leneen loo xam ne moom la ko remplacé loo xam bi mu ko ko remplacé wutale ko te di jëw indi loolu sëñ sëñ bi ni ko noo def ba daanu moom mu ne ko damaa wut leneen lu ma ko wutal mu ne ko xakka saa noonu la loo fa jëlee rek da nga fa war a wutal leneen loolu yëpp misaal la yu koy ay jàngal lu mu ko war a def yoo xam ne day jeexit waaw yoo xam ay jeexit la yoo xam ne bu mm-hmm. ëllëgee si biiree ci mooy ñi nga xam ne moo moo koy donn dëgg la mm-hmm. way juróomu jigéen nit mm-hmm. ku ñu wax soxna Aminatu Lo la tudd di woon ku ku ragal yàlla di doomi sëriñ al mufassir Cheikh Mokhtar Binta Lo Cheikh Muxtaar Muxtaar Bintaloo mhm. nitu yàlla bu mag la woon borom xam-xam bu mag la woon di ngay dégg ci Irwa Unadim Mouhamadul Amin Diop Dagana léeg-léeg mu tudd naan xat axbaran yi cheikh yi xabaar na ma kooku moo nekkoon way juram wu góor moom soxna Aminata Lo mhm. moo nekkan way juram bu jigéen moom soxna Aminata Lo nekk way juram bu góor woo xam moo jur yaayam mhm. moom dañuy feral di dégg léeg-léeg ñu naan ko almardiyati almardiyati mhm. dafa laq gërëmal yàlla mhm. ndax dafa bokk ci ñi nga xam ni mhm. ñoo njëkk a joxe addiya seen bopp seen jëmm seen jëmm seen roox ndax sëriñ Touba dafa am benn timis boo xam ni dafa dem ca jàkka ji ñëwaat dajale njaboot gi yëpp ni suñu borom subhaanahu wa taala xamal na ma ni tey dana jël sama ruux balaa timis a jot waaye nag mane manees na maa demal way juróom moom Serigne Mouhamadul Moustapha daal di laxasaayu ni man na mm-hmm. nangu naa dem. nangu naa dem loolu moo tax ñu tuddee ko almardiya. Mm-hmm. Serigne bi delluwaat ca jàkka ja julli bi mu ñëwee fekk na lu ñuy wax jaan mu matt ko ba mu génn jàmm. ba mu génn àdduna waaw. Mm-hmm. te kon loolu dana dana la won ni kon ku yàlla gërëm la waaye ku nangoo liggéeyal yàlla la. nga xam ne dafa joxe ruuxam. dafa joxe ruuxam hadiya moom soxna soosu. keroog bi ñu koy teg war ko indi nanguwut a dox nanguwut a war dafa nangoo dox ak tànkam daa ne kenn du soxna su baax du jóg jëm ci ay góor di di yéeg war dara dafa dox ak tànkam mu nekkoon ku sel ku ragal yàlla képp koo xam ne nangu ngaa joxe sa bopp ci lislaam mhm. kooku ma xam bi nga mën a am ci yàlla kenn xamul nu mu toll mhm. joxe sa roox jox amul benn booba maanaam xam na ni sëñ Tuubaa njariñ lim njariñ lim war a lim war a lamboo ak lim war a mhm. liggéey waaw loolu Seydina Aboubacar def na ko Mhm. keroog bu ma ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gàddaay mhm. jëm mag madinatul munawwar jóge makkatal mukarram mhm. côté bu ne dana fa dem côté bu ne mu dem fi di joor ak càmmeñ kanam ak ginnaaw yëpp léeg-léeg mu dawal jëm foofu yonent bi laaj ko loo loo jublu ci lii mu ne ko damaa bëgg lu na njëkka a ñëw rek luy ray dal sama ko ray ma ndax yow boo dee mission bi continuer waaye man waaw man bu ma dee ah. mission bi yow di yow boo dundee mission bi dina continuer waaye man man bu ma mën naa dee yow boo dee waaye yow boo dee mission bi dina continuer yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa ruuxu bopp moo ma gënal sama ruuxu bopp loolu mooy dëgg mm-hmm. dëgg dëgg mm-hmm. egg ci dayoo ba nag mm-hmm. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa tahzan inna allaha maana bul jàq yàlla mi ngi ànd ak ñun soxna soosu di way juram noonu la joxe boppam way juram wu jigéen moom moom soxna soosu tudd xari maam Jóob bintu Cheikh ñang njaga isa bintu Cheikh njaga isa Jóob ibnu Cheikh mati faa xujja mhm. ibnu cheikh moxtaar ndumbe jóob moxtaar ndumbe jóob mhm. mi nga xam ni moom Sëriñ Tuubaa daf koo séeréel ni uh-huh. moo nekkoon sangu jamonoom kum jamonoon ca Kajoor rek moo nekk ab uh-huh. sang kon moom dafa boole diggante Mbàkke ak Ndaam ak Kokki waaw góor dafa boole diggante kër yi nga xam ne yëpp mooy kër yu tànn mhm. daf ko boole feeñ ci ñoom ndax ñooñu ñëpp dañ leen xamoon ay nit la ñu ci xam-xam mhm. xam leen ci ragal yàlla xam leen ci tasaale diine lislaam mhm. ndax mu taaroon ba wax nañ ni sëñ bi nee na comme jamonoon te ci suuf si Kajoor rek moo la gën mhm. mooy sab sang kon loolu li mu tekki mooy ñi ko meññ ñu ñu ñu ñu ñu ko ñu ñu ñu am dayolan ci lislaam ak ci diine ji bisu ganeb addunaam bi wala bis bi nga xam ne ci lañ koy tudd mi ngi tombeek fukki fan ci weeru tamxarit tamxarit ku ne xam ne it ngëneel yi nga xam ne moo ci am mhm. ak li nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala loolu la ci jëflante ak yonenteem yi mhm. ak la ca nekk ci ay ay xarbaax yëpp ay ngëneel mhm. ay ngëneel loolu bis boobu moo ci la busub tuddam ba moo tax Moussa Ka daal di wax ni déglul ma wax la yow at ma at ma doom ja juddoo say nopp ama wasasin taarix ba ama wasasin mooy taarix ba daaru salaam mu ashuraa moo doon moo dem guddi tudd moo doon bisu tuddan ba mhm. doon a fekkoon na ba baayam génn istixaara ngir bëgg a ñëw Touba maal abraar loolu moo lay tekkil ni kon ci waxtu woowu sëriñ bi mi ngi ci las listixaar wala mi ngi ci xalwa di di di wër Touba bis ba mu génnee gis na boobee leeruk rasulullahi sar na ba Touba kon li bayit yooyu di tekki mooy mi ngi gane àdduna ñetti fan yi tamxarit bisub tudd ba ma nga doon mu nga dëppoog fukki fan ci weeru tamxarit dëgg la di bis yoo xam ni bis yu yu sell la mm. waxtu woowu it Sëriñ Tuubaa mi ngi ci xalwa di wër leeru Tuubaa ci ab gane ad jamonoom daal ci tënk loolu mooy li ci gën a siiw mooy dafa meññee ci ay ñaari way jur yoo xam ni mm-hmm. ñu ñu sell lañ ñoo xam ne ñëpp ñun tànn la te loolu dafa am doole ci lislaam ci lislaam loolu ñuy tasaare diine ak tasaare gi ñu doon tasaare diine xam nga boo demee ca mm-hmm. xadir ak Muusa mm-hmm. kaana abuhuma saalihan mm-hmm. day bari lu muy joué day bari lu muy meññ ci gi ndax dafa day mel ni loo xam ne dafa nekk ci deret lay doon wa kaana abuhuma saalihan fa araada rabbuka an yabluga ashuddahuma fa yastaxrija kanzahuma loolu yëpp li mu tekki mooy ak walladina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi iman alxaqnaa bihim zurriyatihim kon Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo ko meññi dafa doy sëkk dëgg la ndax dégg naa ci borom xam-xam bu mag ku ñu wax sëriñ Moustapha Saleh mu wax ni képp koo fi dégg sëriñ Touba dafa geddee ko rek def ci yow li muy def waaye leeram bu ne am na def na ci yow fukki weer ak ñaar kon loolu doon doomi sëriñ rek dafa doy nekk tànneef waxantuma la nag nga xamee ne dafa ay waajuram yu jigéen ak i maamam yëpp dañoo nekk dëgg la maanaam kon mën nañoo wax ni Cheikh Modou Moustapha euh, askan bu dee ni askan sax doonut li nga xam ne mooy tax a baax waaye tabe doomu aadama hmm. mel na dafa baaxoo eh, ñu ñu ñuy xool ay askan yu baax eh, looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa suñ borom def ko kenn mënu koo xeeb ci ay askan naka jekk gaayam yu baax yépp it dañ leen jaarale ci bunt yoo xam ni ku xool seeni askan doo leen ci mën a xeeb ndax doomu aadama daa bindoo di gën a gënante ci ay askan moo tax ñu mel noonu donte liy tax a baax dëgg-dëgg du askan waaye nag eh, ni ko sëñ Abdoulaye Junjee maanaa dana tax nit ki am ak mbaax yomb ndax yaa uxta haaruna ma kaana abooki imraa sawin kon Cheikh Mamadul Moustapha ñooñu ñooy ay waajuram Cheikhul Xadim eh, ci gàttal rek ni ko suñu blaat waxee mooy ki nga xam ni maanaam eh, dafa ñëw ngir yeesal sunna seen nabi sallallahu alayhi waaye doy na sëkk kum kum nekk sa waajur nga ñu xam ni nit ku baax nga koo xam ni yoonu mbaax moom eh, ca war a aw waaye maam Aminatu Lo mi nga xam ni wax na ko moom it naka noonu almardi yéeti mooy ki nga xam ne dafa jaayante ruuxam ngir eh, ngërëmul yàlla kon ñaari wajur yu sell yooyu mooy yi nga xam ni yàlla defal na ko Cheikh Mamadou Moustapha ñi ngi siyaar mbokk yi nga xam ni yëpp ñoo ñuy topp ci eh, YouTube bi ak Facebook bi ak Twitter bi ak Periscope bi fu ngeen mën a nekk rek ñu ngi leen di ziar bu baax xëy na ku lim juum waaye yéen itam ci émission bi ngeen bokk man ngeen di wéy di yónnee seeni message ak seen laaj tey jii am nañu occasion daje ak Serigne Abdou Lahad Kandji di borom xam-xam di jàngalekat di imam foofu ci parcelle laaj boo leen yónnee incha allah balaa émission bee jeex dina ko dina ci ñëw incha allahu taala man ngeen wéy kon di yónnee seen i message ndax ñun ak yéen ñoo bokk émission bi dañoo dañ leen a toogal rek ci plateau bi waaye xëy na léeg ngeen am laaj yoo xam ni sax ñun sunu xel du ko jotee sëñ Abdou Lahad gannaaw waajur yu baax yooyu ma bëggoon nga dikkal ma rek ci am njàngam ndax Cheikh Mamadou Moustapha euh, wax nañ ni daanaka mook Cheikh Mamadou Fadal ñoo raw ci réew mi rek. Mhm. bisimilah asalaamaaleykum balaa ñuy ñëw coono ñu delluwaat tuuti rek ci waajuram bu jigéen. Mhm. comme ni ma la ko waxee rek bokk na ci ñi nga xam ne ñoo joxe hadiya seenu ruux loolu mi ngi amee woon ci bisub. fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor ci la amewoon ba loola amee it Sëriñ Tuubaa ci boppam moo ko denc moo dugg ci biir bàmmeel ba nangu ko taxawu ko daal di koy seeral ay ngëneel yu baree baree bari ba wax ni benn bunt moo ko deseel woon ci li lisaaratu Zeydu Zeydul Xayrawaat yi benn bunt moo ko dese woon kon loolu mooy tekki ni moom fóore woon te mi ngi amoon fanweeri at ak juróom loolu la amoon mm-hmm. kon loolu li may tekki mooy ñooñu àndoon ak sëriñ bi mhm. li sëriñ bi waxoon ni yonent bi sallallahu na ngeen roy ci saxaaba yi mhm. noonu lañ meloon ñooñu ñëpp dañoo nekkoon ñoo xam ni dañoo dañ doon dund diine mhm. dañ doon jaar ci yoonu yàlla di wut ngërëmal yàlla loolu moo leen fa yóbbu moo tax loolu képp koo xam ne nangu ngaa joxe sa bopp ndax inna laa shtara minal mu'minina anfusahum kooku mooy ki yegg dëgg dëgg moo tax nga faw boo fa ne yeggee fadduxulu fi jannati loolu raadiyatan mardiyatan jooju ci ngay su ko mën a yegg foofu moo tax sëriñ bi mu defee loolu sëriñ bi ci boppam moo ko denc daal di koy seddeel ay seede yu rëy rëy ni ni nga ko waxee it seenum jàng bi mu matee dal sëriñ tuubaa ci boppam moo ko dalal mm-hmm. moom sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ Fallou moo leen dalal jàng bi mu leen dalalee jàngit alquran ñu jàng ñoom ñaar biñ jàngee ca dëkkam boobu ñuy wax Touba fa la leen daal leen jàng ak ku ñoo Omar Mbacke Gelowal. suñu Omar Mbacke Gelowal mi nga moom doomi sëñ Mbacke Kajoor moom. waaw moom it mhm. ci la bokk moom ak Serigne Serigne Moudou Moustapha ak Serigne Fallou ñooñu la Serigne Touba boo leen daalandool jàng alxuraan ca Mba ca Touba. Mhm. ci kër bu ñuy wax kër naar yi foofu kër Serigne Chouaïb bi mooy mooy kër Serigne Chouaïb bu kër Serigne Chouaïb waaw mhm. nga xam ni naar yu bari fa lañ daan wàcc su ko yëg si Serigne foofu leen tàmbalee jàngale alxuraan moom sëriñ bi ci boppam mhm. wax ne jàngal na leen bañ yegg sóoratu yaasin bi sëriñ bi waajee nag ngir dem jolof tukki dem jolof bi mu waajee ngir dem dem jolof mhm. ci la jël sëriñ Moodu Moustapha ak sëriñ Fallou ànd ak ñoom jël sëriñ Omar Gelawal jox ko sëriñ Abdaam Abdourahman loo mhm. mu daldi di continuer dem ak ñoom foofu bi nga xamee ni nag yàlla dogal na li mu dogal te mooy digganteem ak tubaab bi te xam nga dem gi jolof lép dafa am lu ko waral xam ne buñ buñ ca bëgg na xuus xëy na dëgg la ndax bi mu nekkee Touba al mahrusa nga xam ne yàlla aaral na ko fa dara du ko fa fekk mm-hmm. mu gisanteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu war a signante contrat boobu bu nga xam ne ci la war a demee ci géej gi te nga xam ne wax na ni sababu gaybati an allah arada an anala minhu al jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi daa contrat boobu nag yàlla daf ko xamal ni dëkk bi dañ ko aar ba dara du la fi fekk ca changé loolu moo waral mu dal di toxuwaat génn dëkk ba. wala boog Tuuba waaw. Mhm. toxu génn dëkk ba. Mhm. bi nga xamee ne ànd ñoom nag ba loolu am te mooy dem gi ci géej gi mille huit cent quatre-vingt-quatorze quinze ci la leen jël wala boog bi mu leen jàngalee diir boobu ban yegg sóoratu Yaasin ci la leen jël jox leen maam Thierno. maam Thierno jëlaat leen jox leen Serigne Dame Abdourahmane Lo mu yeggalee leen seen jàngum alxuraan bi nga xamee ni dem na nag ba nga xam ni yegg na. ci mhm. war a dem géej. mu mhm. boolee leen ak Baye Thierno seen Baye Thierno. Mhm. mu dénk leen ko dénk naa leen seen Baye Thierno naa yàlla ak yonent ak seen Baye Thierno. dëgg la Baye maam Thierno Ibra Fati jàngal leen xam-xam diggante maam Thierno Ibra Fati ak Serigne maam Mor Jaara ak Serigne Mbakke. ak sëriñ Abdourahman Lo diggante boobu lañ jànge ak sëriñ Touba ñu jàng foofu xam-xam yoo xam ni li sëñ Fallou daan wax naan maag sëriñ Modou Moussa wax danoo jàngal ban ne ar mu yar ba ne nër te génnuñu suufa Touba njeereem mm-hmm. bi sëriñ bi ñibbi ñibbi si waatee nag daal di commencé ak ñoom tarbiya gi nag te mooy fu muy dem ànd ak ñoom bokk nañ ci ñi demoon Mauritanie xam nga Mauritanie ña fa demoon ñoo daj nañ fa lu ne mm-hmm. bokkoon nañ ci ñi nga xam ne ñoo nekk nag moom Thiéyène biñ jógee foofu it bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo nekk nag moom jaareem sëriñ bi di leen tarbiya bindal na sëriñ Touba ñeen fukki kaamil ak ñaar moom sëriñ Modou Moustapha moom sëriñ Modou Moustapha ñeen fukki kaamil ak ñaar bindal na ko sëriñ Touba mm-hmm. te bokk bokkut ak tool yi nga xam ne moom lay bay di indi bokkut ak ah. dëkk yi nga xam ne sañ te loolu yëpp mi ngi ko def ci teewaayu sëriñ Touba mm-hmm. kon sëriñ Modou Moustapha kon ci diggante borom daaru ak sëñ Daawud Rahman Lo fa la jàngal Alxuraan maam Caaroon nag moo leen jàngal xam-xam ak xanaa sëriñ Mouhamadou Diarra. waaw sëñ Mamour Diarra. sëñ Mamour Diarra jàngal na leen xam-xam. xam waaw. Mhm. moo tax ñu mujj nekk ay géej yoo xam ni. Mhm. kenn mënut a misaal seen xam-xam. Mhm. ci tënk daal ci ñooñu daal lañu jaar jàng xam-xam. jërëjëf sëriñ Abdoul Ahad Kandji moom lañu ñu àndal tey jii ci émission bi di waxtaane Cheikh Mouhamadoul Moustapha ni ma ko junjee woon léegi man ngeen wéy di yónnee seen i message ngir bokk ci émission bi ndax ñun ak yéen ñoo ko ñoo ko ñoo ko ànd. Euh, sëñ ni mu ko waxee sëñ Mamadou Moustapha ñoom moo Cheikh Mamadou Fadal xam-xam bu dee géej la ñoom ñoo ko dëtëm ñoom it la mag ma waxoon rek ni bu téere yi raafoon ñoom lañu xam ci ñu ko mën a bindaat ndax euh, ni ko sëñ Abdou Lahad jàng dal alquran Serigne Touba dalal leen ko sëñ Daam Abdourahman loo jàngal leen ko maam Thierno jàngal leen xam-xam aslëf it sëñ Mouhamadou Diarra jàngal leen ko ba sax wax nañ ni sëñ bu Bousso it am na dara lu leen jàngal ci xam-xam loolu kon ñoom eh, bi ñu demee gànnaar it am na loo xam ni yokkuwaat nañ ko ci xam-xam yi nga xam ni amutoon ci réew mi kon ñoo ñu defe naa ni ñoo raw ci réew mi kon sëñ Abdou Lahad dañuy daal dugg rek ci Euh, junju maanaam jaayante gi nga xam ni jaayante na ko ak sëñ Touba ak tërbiye gi nga xam ni sëñ bi doon ko tërbiye ndax bokkoon na ci ñi demoon gànnaar ak Céyeen moom Cheikh Amadou Moustapha bu ko defee sëñ Mor préparal ñu élément bi nga xam ni war nañ ko jëlee ci Cheikh Amadou Moustapha euh, tam doon ay témoignages ñoo xam ni nit ku baax moo ko wax ci jëmmi Cheikh Amadou Moustapha sëñ Blaat nga dugg rek kon ci tërbiye gi ak jaayante gi mu jaayante ak sëñ Touba. bi nga xamee ni Serigne Touba dellu si ne jóge ci tukkim bi tukki boobu ne mu defoon ci géej gi. Mhm. ci atum mille trois cent vingt ba mille ci hijriya ba mille neuf cent deux ci miladiya Cheikh Mouhamadul da dajen ak waajuram ca Mauritanie. Mhm. ànd naa moom dem Mauritanie mooy tukkib ñaareel bi foofa it comme ni nga ko waxee. gën na faa xóotal xam-xamam ci fànn yu bari ci xam-xamu maarif ci xam-xamu sharia ci xam-xamu luga ci xam-xamu ëdëb mm-hmm. xam-xamu aqliya lépp gën na faa mm-hmm. xóotal am xelam foofu ci gànnaar foofu ci gànnaar mm-hmm. foofu it taqoo na fa ak Serigne Touba ci wàllu tërbiye googu nga xam ne moom ngay wax mu mu nga jariñoo lu bari ci Serigne Touba ci tarbiye ko tarbiye ruux ak ay tawjihat suufiya maanaam jub ay junj yoo xam ne wala jubale yoo xam ne nit yàlla yi ñi nga xam ne ñoo xam yàlla daan koy junj foofu it soobu na fa li ñuy wax yoonu te tasawuf ci wala yoonu taalube ci mhm. wa ci ci yoon wi sëñ bi baaxoo soob ci baay baay waajuram mhm. daal di daal commencé nag jël yoonu iraada te mooy yoonu taalube ak himma googu ma la waxan ca tàmbali ba ak soobu ci yoonu mujaahada mujaahadatu nafsi ak mujaahada jihaad ak sa bakkan ak jihaad ak mbooleem loo xam ni ay taq-taq la yoo xam ne war na taq ci nit ki ba du mën a yegg ca pays yàlla yi mhm. ci dagg sa bakkan ci lépp loo xam ni taxoo naag bëgg adduna ak lépp luy daraja ak alal ak lépp loo xam ne daal jëmu fa daal di jëm nag ci lépp loo xam ne lu baax la ak loo xam ne lu sellal yée la yéeneem la ak lépp loo xam ne mbir lay doon moo xam ne charia boo ko digle ak ay xereñ xereñe yoo xam ne moo ko def jële ko jàmm moo xam ci riyaada la ko doon defee wala mu koy defee ci zikkar tudd yàlla wala mu defee ko ci dëddu yooyu yëpp sëriñ bi jëflante ko na kook moom loolu moo xam xiif la moo xam liggéey bu metti la moo xam ay yen yu diis la yooyu yëpp foofu sëriñ bi tarbiya na ko fa ba ci ay jàng ay xasida ak saxoo taxoo njàpp foo toll ak di beru nit ñi ci ay junj yoo xam ni kilo lay yar moo la koy junju rawatina sori mbooleem loo xam ne ay jigéen la ak di dellu lu baree bare bari ci di tudd yàlla ak di wax laa ilaha illallah foofu sëriñ bi jëflante na ko ca ak moom lii dénkaane la boo xam ne sëriñ bi moo ko ko dénk wax na ko laat moom seex Muhammadul Moustapha mm. waa na ko ni laa tansa niyata la daa kulli layaat fa innaha bu afdala ayaat loo man di def bu ca fàttee yéene ndax yéene mooy ñoddi bépp ngëneel loolu boo delloo ci charia rek da ngay gis mbooleem jaamu yàlla yi ñuy def rek ngëneel yéene farata la cay doon boo demee ci hmm. julli yéene farata la ca boo demee ci njàpp yéene farata la boo demee ci sangu farata mbooleem xeeti jaamu yàlla yi rek yéene da cay nekk farata moo tax Sëriñ Tuubaa ko bul fàtte di def yéene ci lu mu mën di doon ndax yéene ci lu man di doon kat mooy ñoddi njariñ ci yëf yëpp su ma xilaamu layli duuna kasal maa ngi lay dénkit na nga nanga saxal nga ma xiyaama layli duuna kasal ngay taxawal julli guddi di julli guddi di taxaw julli guddi mhm. ci lu tàyyeel mhm. wa bi tilaawati fudul al ci jàng alquran nag na fexe ba lépp luy caaxaan nga raxase ko ko wa farra min majalisi al xufuuli inal xufuula muksirul aqwaal yi na nga na daw bépp jataay boo xam ne jataay sàggan la ndax càggante yi kat mooy tax nit ki di bari ay wax wala alxibata naqi bi sukuuri wa zikri rabbika al mukarrami shakuuri mu ni waddane sil xibati lépp loo xam ni tilim tilim la bu jóge ci jëw jëw na ko sellale ci sant yàlla ak tudd sa borom mi nga xam ni mooy aji teral ji mooy ki nga xam ne ku mooy mooy ki ñu war a sant wan wi li nafsika xuyuran liman raaytuhu yatlubuha kullu zaman na nga yéene sa bopp aw yiw nga yéene ko it képp koo xam nga gis nga muy sàkku aw yiw ci jamono bu ne wa fi lazi yurdi idaaka irhabi wa an siwa ma laysa yurdihi irhabi lépp loo xam ne suñ borom subhanahu wa taala loolu la gërëm mu ni ko na nga xemmem loolu waaye lépp loo xam ne lii xam nga ni ngërëmal yàlla newu ca na ko sib loolu ay ndénkaane la yoo xam ni moom Serigne Touba moo ko ko doon dénk mm-hmm. bokk na ci tarbiya googu ma la doon waxit loolu nga xam ne defoon na ko te mooy bi mu wéeree bunt bi am lu mu ko gege ni ko jottali ma ko mu daal di dem xam ne bu ko yëkkatee bunt bi daanu mu daal dem wuti loo xam ne da ko koy gegee bi mu ko ko gegee ba bunt bi man ki mu daal di koy indiwaat sëriñ bi nag maanaam bi mu ko bunt bi li mu téyee mu daal di koy indi indi li ko sëriñ bi yónni woon te moom la gege woon kale woon buntu bi mm-hmm. sëriñ bi daal di ni ko hakaza noonu la de qabla an tanqula ayu shay'in an mawdihi aw jid lahu badilan balaa nga jël jële dara bérébam na wut loo ko remplacé na nga wut loo ko loo loo ko maanaam dénkaan bi nga wax ni ci jamonoy tarbiya gi ci la ko ci la ko ko dénk waaw doon doon doon la ko ko dénk maanaam dafa bokk ci yar gi mu koy labiré mm-hmm. ci yi nga xam ni mm-hmm. ay teef la yu mu war a def dëgg la loolu daf ko ko digal Mm-hmm. pour mu bokk ci warteef yoo xam ni moom la war a def te mooy di julli guddi mm-hmm. di taqoo di sikk tudd yàlla ak di yéene bo yéene fu mu toll wala lépp lu mu jëf mu yéene ca boole ca yéene balaa mu kii loolu daal mm-hmm. mbir la yoo xam ni daana yóbbu daana jël ay hadiya yu bari di ko yónnee Serigne Touba daana liggéey di bay am na benn bis mu yób yónnee ko ay hadiya yoo xam ni kenn jox lettre bi dani boo demee nanga nga dafa dafa bind ci lettre bi ni dafa bind ci lettre bi ni lu mm-hmm. tolloog li mu sóoratu xaddar mm-hmm. moo nekk moo nekk ci ki ma yónni ki yor lettre bi mm-hmm. mooy li mu junni alfu jooju suñu borom subhanahu wa taala tudd ci xayru min alfi shahri jooju mu tudd lim boobu ngir rek bañ tudd sax li nga xam ne moom la jël Sëriñ Tuubaa tamit daal di koy gërëm daal di koy waxal addiya yi muy joxe lan lay jariñ foofu la ko waxee ne alhadiyatu tajzibul murida ila saada addiya day day ñoddi ab taalibe jëme ko ci texe wa yi daf koy ñoddi it jëme ko ci ay maqaama yu rëy a rëy képp koo xam ne da bëgg a texe del joxe addiya mm-hmm. képp koo xam ne it da ngaa bëgg a yegg ci maqaama yu rëy a rëy del joxe ay addiya wa kasratul maali ku bëgg alal it Serigne Touba nee na del joxe addiya joxe addiya day tax bari alal mm-hmm. wa tuulul amri ku bëgg dund gudd gudd fan wu gudd it Serigne Touba nee na del joxe joxe addiya day joxe fan wu gudd mm-hmm. wa mahabbatu naasi koo koo xam ne da bëgg nit ñi bëgg la yit nee na del joxe addiya ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na koo xam ne ñëw na ci moom ni ko dama bëgg nga wax ma loo xam ne bu ma ko defee yàlla dana ma bëgg waaye nga wax ma it loo xam ni su ma ko su ma wax ma loo xam ne su ma ko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam tahaadu tahaabu addiya leente leen bu ngeen ko defee da ngeen bëggante te bokk na ci it li nga xam ne addiya moom lay jëriñ mooy raw sag maas ki joxe addiya dana raw ak maasam mm-hmm. wa adam ru'yatil malakayni dana tax bu ñu ko dugalee ci bàmmeelam du gis ñaari malaka yi te mooy munkir ak nakir wa suratul jawaaz ala sirat joxekatu addiya bokk na ci li mu koy jariñ mooy bu jéggi siraat day gaaw ni mu koy jéggee wa taxawul wa duxul jannati bi xayri xisaab dana dugg aljana yi te kenn du ko xisaab wa an laa yura fitnatal xabri te du gis fitna ji nga xam ne moom mooy moom la ñuy wax ni fitna ji am ci bàmmeel kii joxe addiya dana ca mucc wa yanju min akli duudi fil xabri sax yi lekk nit ki buñ ko dugalee ci bàmmeel dana ca mucc wa xayri zalika ak yeneen yu bokkut ak yooyu fil hadiyati manaafiun laa tuktabu bil aqlaam am na. ci ay yooyu yooyu sëñ Tuubaa ko bind. sëñ Tuubaa wax dafay jëriñ ki nga xam ni day joxe addiya mm-hmm. maanaam saa buy joxe addiya rek yii yëpp dana dana yooyu yëpp dana ko am mm-hmm. dana dana dana dana texe mm-hmm. dana am maxama yu koye dëgg la alalam dana yokk dana gudd fan nit ñi dañ ko sopp koo jox mu sopp la te nit ñi dana jiitu ak maasam te bu bu faatoo ba dugal ko ci bàmmeelam du gis munkar ak makkiir te suy jéggi siraat dana gaaw dana dugg aljanna ci lu de xisaab du gis benn fitna ci biir bàmmeelam dana mucc ci mbooleem lekk yi sax yi nga xam ne ñooy lekk nit ñi ci bàmmeel ak mhm. yeneen yu dul yooyu yoo xam ne sëriñ bi ne kenn du ko bind ci xalima te de su ko wax ci làmmañ mhm. ndax benn addiyee rek danañ ci fay boroom fukki junniy tuyaaba te loolu mooy li ci gën a néew li gën a bari moom kenn xamu ko ku dul yàlla subhanahu wa taala dëgg la sëriñ Abdul Ahad euh, yaakaar naa ni mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp am na nañu mbégte lool ci waxtaan wi ndax boobaak léegi ñi dégg xam-xam mi ngi feeñ ci biir waxtaan wi ndaxte jëmm ji ñuy waxtaane fees na dell ak ay ngëneel waaye it Serigne Abdou Lahad mi ñu dalal tey jii moom euh, leeral na ci euh, lu am solo ci maanaam tolluwaayu xam-xam bi nga xam ni mi ngi koy wax kon ba tey mën ngeen a yónnee it di euh, yónnee seen i message ak seeni laaj ànd ak ñun jotaay bi ndax it yéen ci ngeen bokk bu ko defee loolu danañu dimbali laaj yi nga xam ni bëgg ngeen koo xam te ñun laajuñu ko sëñ Abdou Lahad ngeen dimbale ñu ci ba yónnee ñu ko bu ko defee ñu mën leen ko koo laajal ndax tey jii am nañ ci occasion wu daje ak sëriñ Abdou Lahad Kandji moom muy jàngalekat di imam fii ci parcelle euh, ñi ngi ci waxtaane Cheikh Mamadou Moustapha mi ngi tudd it xam-xam bi nga xam ni jàng na ko waaye tërbiya googi sëñ Touba daan ko tërbiya ca gànnaar ak euh, labiré yi nga xam ni bind daana ko bindante ak moom ak di leen xamal njariñ yi nga xam ne ay jëf la lu ci mel ne hadiya ji mu tudd léegi eh, ndax ki ngay yar faw nga koy xamal maanaam njariñu li muy def lu mu doon ngir mu gën cee mën a góor góorlu gën cee mën a xam fi muy teg tànkam defe naa ni it sëñ bi gannaaw bu ñu gànnaar ba ñëw ci yéen am na nettali bu sëñ Fallu bu siiw boo xam ne mi ngi koy nettali ci xamal gum leen xamal li nekk ci moom eh, ne si war jaayante ak moom euh, loolu jataay boobu defe naa ni Cheikh Mamadou Moustapha fekke woon na ko ana jaayante googu nan la ko Cheikh Mamadou Moustapha defe woon ak sëñ bi comme niñ la ko waxee rek tarbiya googu nga xam ne moom la doon tarbiya wu Sëriñ Tuubaa te ñoom ñoo ko àndan ndax wax naa la ni juróom benn weer la ñu rawantee ak fukki fan ak juróom ñaar mhm. kon lépp ñoo ko bokk ñoo bokk jàng ñoo bokk tarbiyandoo ñoo bokk nekkandoo gànnaar lépp ñoo ko bokk koo ca wax rek mel na li la nga wax kooku ca nga wax ca keneen mhm. tax dañuy faral di wax sax ni doomi Serigne Touba yëpp benn la te loolu noonu la amee donte ñeneen ñëpp xëy na dinañ ci yéeg si Serigne Mourou Moussa moo leen taxawu mm-hmm. waaye ak loolu yëpp teewul amul ci kenn koo ci mën a ràññee ak moroom ma ñoom ñëpp da ngay fekk ñu mat sëkk ci xam-xam mat sëkk ci ragal yàlla ak jëf ju rëy ak xel loolu moom sëñ Mourou Moussa Serigne Touba daf ko seereel ay jaw ay yooni yooni yoon ci kanam nit ñu bari ci ngërëm lu mu ko gërëm ak dëggu gu ci ak taalube ak waaye teewut moom lépp ak loolu yëpp moom muy soxlawoo ci ay di ci jàng ak di ubbee ak di tarbiye ci nam mu gën a ni mu gën a yéemee ba keroog ba nga xamee ne sëriñ bi sëriñ bi jógee na fi 1927 mu remplacé ko noonu it la leen sëriñ bi ndax ku ne xam na ne sëriñ bi li mu yor yëf yàlla. Mm-hmm. yëf yàlla nag moom kenn du ko maye. dëgg la waaw faaw da ngay eh, tarbiyew inna la yu bàyyeewu naka mm-hmm. innamaa yu bàyyeewu na allah. dëgg da ngay jaayante. moo tax sëriñ bi teel leen xamal ni leen li fi ne du doom du du rakk du jarbaat li fi ne daal yëfi yàlla jaayante ak liggéey moo koy maye mhm. waaye it ñoom it teel nañ koo xam mhm. ci la sëñ Fallou bindee ba tamit yu siiw yooyee wax ni jaay nag juróom jënde ko ak taalube mhm. waaye loolu yëpp li mu tekki mooy ñoom ñëpp noonu lañ ko defee ndax kenn ku ci ne la nga bindal sëriñ Tuubaa ci ay kaamil kenn xamul nu mu tool waaye la nga bay jox ko kenn xamul nu mu tool kenn ku ci nekk daal liggéeyal nga sëriñ Tuubaa liggéey boo xam ni boobu mm-hmm. moo jege na dayoo mm-hmm. jaayante googu nag ban ko jaayantee ci lañ laxasaayu diirub li fi sëñ bi ne ci la ci la nekkee ci ci liggéey boobu ma lay wax ci bindi kaamil yi ci ci joxe ay hadiya di di liggéey di sanc ay dëkk ci fekk boobu sëriñ bi mi ngi fi mm-hmm. loolu ñoom ñoo ko ànd ñoo ko defandoo ca liggéey boobu nga xam ne ci lañ liggéey ba sëriñ Tuubaa la ngërëm leen ndax sëriñ Tuubaa li mu yor yëfi yàlla yëfi yàlla nag moom kenn du ko joxe ci noonu dëgg la loo ko yéene yéene nit mu am ndax Sëñ Tuubaa ci boppam dafa am fu jaar na batukum ala kaddin bada lii xam la an ara di dan mu abada la liggéey boobu mu liggéey mën a naa toog rek yàlla jox ko mhm. waaye dafa dafa ak li muy am may yëpp teewul dafa laxasaayu dafa jóg laxasaayu laxasaayu dugg liggéey mhm. moo tax ñoom ban ca yeggee sëriñ bi xam leen ni lii yëfi yàlla dëgg la yëfi yàlla nag mhm. jaayante am yitte amuk taalibe moo koy maye loolu nag ci lañ sax ñoom ñaar ba ak mboolem moo waral sax dëkk yi nga xam ne sanc na ko mu sanc dëkk yu bari daaru nahim daaru nahim daaru ak daaru tawfiq naydi ak mhm. dëkk yooyu yëpp mu sanc ko te li mu fay doon li mu ci jublu rek mooy doon bay gis nga mu tudd daaru daarul islam daarul islam loolu yëpp daarul minan daaru daaru salaam gal taayif mhm. xam dëkk yu toll noonu ci koo xamee ne ay atam bariwul ci jamono bi muy def loolu loolu loolu yéeme la loolu yéeme la loolu yëpp day day tekki ni dafa donn sëriñ bi ci njàmbaar ci fit ci lépp ndax waxtu woowu ku mën a sañc dëkk yu toll noonu waxtu woowu ku mën a taxawee li mu taxawee amul waxuma la nag boole ci nag di bind kaamil xam nga tey bind benn kaamil rek nga bind ci ñeen fukk xam nga loolu ak ñaar ñi ñi jaar ci ji loolu jéem ci bind xam nañ ni bind doonul lu yomb loolu jamono bu ne bi ngay nekk ndaw sax di féex dara gàllankooru la bind yombul loolu loolu lu yéeme la waaw moo tax Serigne Mamadou Moustapha mhm. daal ci ñara moom daal raw na moom daal mat sëkk la def ci fànn yëpp loolu moo waral man taxawal xam naa ni li ma li fi ñu maanaam waxtaan wi fi ñu ko gënoon a soxlaa nag ñu ngi fiy doog a agsi maanaam gannaaw bi nga xamee ni sëñ bu mag bi mi ngi ci ñibbi Touba ak bi mu ko yóbboo Touba ak gannaawam loolu mm-hmm. defe naa moo gën a am solo ci waxtaan bi te suñ tuddee sëñ Modou Moustapha eh, ñëpp eh, seen xel yaakaar naa dina dem ci indi gi mu indi raay bi Touba. Mm-hmm. cinquante kilomètres yu toll noonu. Mm-hmm. nit ku ñuul damay wax barki démb nit ku ñuul ku mas def loolu ñun xamuñu ko ci histoire ba am ku ni ma nit nit ku weex sax mësu koo def lu dul ni état mooy def loolu. Mm-hmm. maanaam nit ku def loolu te kenn dimbalewu ko ci ñun sëñ Modou Moustapha lañ ci xam. Mm-hmm. ci ku ko mas a def. Euh, kon naka la sëñ Modou Moustapha taxawoo sëñ bu mag bi ci mujjantalu euh, ñibbeem Touba ak ba mu ko indee Touba ak gannaaw. xam nga bokkoon na ci dénkaane yi ko sëriñ bi dénk mooy bu fi jógee mu yóbbu ko Touba. Mhm. loolu nag la ma la wax rek ku mat sëkk fan yëpp moo mën a delloo si loolu mooy ki ko mën a taxawee xam nga yonent bi sallallahu alayhi bi mu ganee bi génnee jamono saxaaba yi dañoo tasaaroo ñii lu ñii seen a ñii ñii lafañ mënatunoo dem dégg la ñenn ñi mënatunoo wax ñenn ñi tàqale ko seen soo ku may ni Omar ibnul Xataab yor jaaseem ni ku ma dégg nga ni yonent bi sallallahu alayhi rek génn na jamono rek ma teqale sa baat ak sa bopp loolu mooy tekki ni yonte bi fi mu tolloon ci ñoom ëppoon na wala fi mu tolloon ci ñoom réyoon na ba tax na bi nga xamee ni jóge na fi ñoom sax fàtte na ni yàlla nee na ko kullu nafsin zaiqatul mawt dëgg la fàtte nañ ni sax yàlla nee na ko innaka mayyitun wa innahum mayyitun fàtte nañ loolu lépp waaye ni mu réye woon ci ñoom ak cërib yàlla bi mu yoroon moo tax ñoom ñëpp ñu jaaxle waaye mm-hmm. am na koo xam ne yàlla ki nga xam ne moo ko war a wuute toujours yàlla dana am ak dal gum la jox mhm. dana am xel moom la jox mhm. dana am kii bu nga mën koo taxaw moo tax Seydina Aboubacar Sadiq moom bokku ca woon mhm. fekku ko fa woon waaye ban ko ko waxee ba mu ñëwee rek dafa jawal ñëw xool ko xam ne loolu noon la demee rek kullu nafsin zaa'iqatul mawt mu xool ko mu ni ko daal bi ngay dund daal teey nga rafet nga waaye nag bi nga faatoo sax ci nga gën a rafet ci nga gën a teey daal di génn nit ñi léegi koo xam ne da ngaa jàppoon ne Mouhamed day dund faw wala nga doon jaamu Mouhamed mooy boo nga xam ne Mouhamed moom faatu na koo xam ne nag yàlla nga doon jaamu na xam ne yàlla subhanahu wa taala moom day dund te du fi jub mukk loolu loolu loolu la daal leen di delloo dëgër la wéetal yàlla daal di bu baax a baax ci yàlla mm-hmm. daal leen di indil ay aay yoo xam ne ñoom fàtte woon nan sax ne aay yooyu mi ngi ci alquran daal di delloo mm-hmm. sëriñ Modou Moustapha it bi muy bi loolu di am fekk na am na ñeen fukki at xam nga hmm. Serigne Touba bi ko yàlla di yen yen bi it fekk na ñeen fukki at la am wala boog bu manqué ay weer la manqué dëgg la waaye ñaari yàlla it noonu lay def da bari na nit yàlla yoo xam ni wala may may nit ñi ak yonent hmm. ba ci yonent bi sallallahu ba mu koy yónni dafa fekk ñeen fukki at la kon loolu cër lay doon boo xam ne ñaari bu ko yàlla di jox nit day fekk ci at yooyu lay toll hmm. booba it xam nga Euh, mu mel ni mu toog ba yàgg rek ñu ilham ko ko loolu yàlla dana ko jëflante ak nit ñi sànni ko ci sa xol mm-hmm. wala mu wax nga dégg mm-hmm. bu ko defee nag loolu sabab mu dal di takki bagaasam daal di ñëw njaareem mm-hmm. bi mu ñëwee fekk xew-xew bi amit dégg xew-xew bi am mu daal di ànd ak dal ak mu mat goo xam ni jéggi na dayoo maa ngi dégg koy nettali mu ne Sëñ Abdou Lahad daf ko wax ni maa ngi lay laaj da maa ngi lay laaj bi nga ñëwee fekk loolu noo def te bu ma bu ma bu ma nettali bu ma wax ma ci saayir rek ndeysaan mu ni ko xanaa am yitte ak dal gu mat sëkk mhm. ak himma goo xam ni ki doole ci yoon wi sax mhm. egsiwu ma ci wax kon loolu moo lay won ni ku ko dal dëgg dëgg mooy tax yëf yi oh, maanaam wàccaay ni ko wàccaay waajtaal mu waajal ko ba eh, yóbbu ko te kenn te kenn yëgu ko ku ku yëgul kon suñu blaat eh, nga may ma foofu rek ma jëli élément bi nga xam ni bëggoon nañ ko teewlu ci dunduk sëñ Mouhamadul Moustapha te kilifa gu baax wax ci jëmmi Cheikh mu Moustapha kon ñu ànd ak waare si teewlu élément bi dellu siwaat ci jataay bi fonkoon leen lool doonoon seen baay di seen mag te defoon leen sëriñ ngir daan xeeñ ci ñoom sëriñ bu mag bi ak di ci sàkku ngërëmam kenn ku ne ci ñoom mu taxaw la ba nga mottali sam njàng sampal la kër di la jàppale ci sa mbiri àdduna ba tax na ñoom ñépp kenn ku ci nekk jox nga ko cër bu rëy jox nga ko cër bu ràññee ko lool ci fonk ko lool ak bëgg ko yaa am gëneel ñëpp ay karaama karaama sëñ bi la ñu waaye ndax ak matam ci wàll yëpp biir biti xam-xam bi mu waxuma ko dafa jàng li li mu war a jàng lépp bokk ci xoolamaa yi doora nag eh, doora teg ca xam sëriñ bi xam ku mat sëkk. buñ ko wuutoo itam leen naar ba waxoon ne asayxu mubtadaun man dama koy jël ne moom ne wal Moustapha xabaru. maanaam nga xam ne naar bi xabar lu ko defoo bi ko fi bi ko sëñ bi wanee ginnaaw man dama koy jël def ko li ñuy wax badal ci ci ci naxaw badal dañuy wax ne ñu ñu ci wolof da mën a loo koy xamee da ngay mën a dindi lam badal wutal ko fa wax ju yàqu sëñ bii dem moom moom moo ci doon mag cheikh mouhamadul fadil cheikh mouhamadul amin cheikh mouhamadul basir ginnaaw ñooñu sëñ abdou borom dër bi moo ciy mag te ñaar bi sëñ bii dem sëñ Blaat ci daan mag fukki at ak ñeent te moo magaan ñi ci des kon ay njaboot lañ yoo xamante ni daf leen waroon a taxaw ci si mottali seen àllu ba ak seenu biar te loola adduna suñ borom jox na ko ci ndam ndax ñu bari dañ naan doom sëñ Tuubaa yëpp a yem kon ki leen doon yar yàqu leen. nañ ne xasida bi boo xaqan ba ko sëñ bi tarloo ba ñu foofu am na ku ku ku sëñ Fallu nettali ne ko ba ñu àggee foofu sëñ sëñ bi jàpp ne sama ñaari bopp mag Cheikh Moustapha dee ñu loo xam ne duñ ko nett ko ba ilaa yu <laughs> mujj kon leen boole la. Euh, digg euh, mag euh, dama ko yëg yëg yëg ba nga xam ne bindu ma sax waaye li may bind di bind di bind na seen diggante am na bind ba mu ci def waaw ngir mënu koo muñ ndax mm, bëgg ñu xam seen diggante. damay wax ne ñaari gor yu àndoon lañu ñoo xam ne ñoo bokk positif bokk ndigal bi bokkee positif bokk ndigal ba noppi nag dañ doon ñaari gor yu ànd loolu laa xam. jërëjëf yaakaar naa ni eh, déglu ngeen waxtaan élément bi nga xam ni. seetaan nañ ko ci gaañu baax ñi nga xam ne wax nañu ci dundu Cheikh Amadou Sow rawatina Cheikh Mahamadul Muntaxa ñuy sant sëñ Jili Ba yaakaar naa kàddu googu ngeen dégg muy voix boobu moo ko def euh, sëñ Abdou fi nga tolloon rek sëñ Muntaxa mm-hmm. yaakaar naa bi muy door ci wax ji loolu la wax mm-hmm. maanaam xam-xamu Cheikh Mamadou Moustapha ak maanaam pësséefam mm-hmm. foofu yi nga tolloon ci bi sëñ bi demee taxawaay boobu bi mu ñëwee dal ga mu dal ñu xamee ba xam ne yàlla subhaanahu wa def na lam daan def kullu nafsin zaa'iqatul mawt mu dal di dal dal di yeble yëgal ko sëriñ Basiiru yëgal ko Mouhamed Mouhamedou Amin Diop daanga ak sëriñ Basiiru ak sëriñ Fallu mhm. ak Mouhamadou Tandax yi waaw nga xam ne moom ak sëriñ Mouhamadou Amin Diop ñoom ñoo ko ñoo ko taxaw daal yeble ci sëriñ sëriñ Faati maam Thierno. Mhm. yëpp lañ sëñ Mbacke Bousso. waaye dafa mel ni xar baax la. ndax xam nga jamono yooyu kenn ku ne fa nga nekk ak sa morom. sa morom daa sorente na. Mhm. te xam naa waruwaay yi nu am ci jamono yi bu mën a gaaw amut woon. Mhm. waaye ci xef ak xeppi ñoom yëpp daje nañ fa. dëgg la dafa mel ni daal xar baax la. biñ demee Serigne Mbacke Bousso daal di koy taxawu jiite ko. jullee ko ñu denc ko. Mouhamadou Amine Diop na mi ngi wax ci Irwa ne bi mu génnee bi dencee ba génn rek. fekk guddi gi lañ ko dee fajar xar na nga xam dañoo pare rek dal di daal di noddu dal di julli mhm. fajar bi ñu génnee rek nee ñu amee ku kuñ dajee ku ku ma dajeel nee bi ma dajeeg moom ma laaj mu laaj ma ana sëriñ bi ne ci gént la ko wax nee na dama dafa dajeeg moom rek mu ne ko démb de damaa gént ma dajeeg yow ma laaj la ana sëriñ bi nga ni ma waama muhammadun illa rasulin xat mhm. xalat min qabli rusul afa in maata aw xutila nga wax la ma ni ko ah kon de gis nga mbir mi noonu la demee de Mhm. mais bi ñu génnee rek. nee dafa nekk daje mu wax ko dama mun ko gént naa démb laaj la bi. laaj la sëriñ bi nga tari aaye boobu nga tari aaye boobu. nee mu daal di koy wax ni ko noonu la demee. Mhm. gis nga ko noonu la demee. bi nga xamee ni loolu daal ko am na sëriñ Mourou Moussa daal di ñibbisi nag moom demut woon falat ma nga toogoon jaarim bàyyi leen ñu dem waaye xoolal jamono yooyu maam Thierno fa mu newoon. dañ mhm. Mbacke Bousso sax xaw naa jege. waaye ak ñeneen ak ñeneen ak nin mën a dajee nu mu gën a gaawee loolu xar baax la kéemaan la kéemaan gu rëy kéemaan gu rëy amul waaye moom yóbbu ko day jafe waaye mat na ñaar fukki nit mhm. ak juróom-ñett mhm. ñoom ñoo ko taxaw li mu aarafi Touba ñoom ñoo ko taxaw mhm. denc ko bi nga ne ñibbisi na nag mu daal di ràngoo liggéey bu rëy boobu nag liggéey boobu nag laa bëgg nga dugg ci liggéey bu boobu liggéey liggéey bi nga xam ni mooy jële saxaar gi njaareem train eh, yoonu saxaar gi njaareem yóbbu ko Touba ak fondement jumaa ji liggéey bi sax mën naa la wax ëpp na foofu liggéey boobu rëy na lool. nga xam ne mhm. ca jamono jamono ji sax am na ñoo xam boo ko santaane woon dana dana dana doy waar. Mhm. waxatuma ak jamono joo xam ne xaalis amut dara amut dëgg la nit ñi ñàkk nekk ci bekkoor nit ñi daanaka amuñu lu lekk. Mhm. waaye liggéey bi bi nga xam ne moo gën a rëy ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam li an yahdiya lahu bika rajulan wahidan xayrun laka min humuri niham nga fexe ba defar benn nit. suñu la joxoon alal ju dul jeex wala ñu jox la xur ba mu fees dell ak ay xaraki nag ak gileem nga defar benn nit moo ëpp doole. loolu ci yow. dëgg la bi mu fi jóg bi fi sëriñ bi jógee ku dul Mouhamadul Fadal. si Mouhamadul Fadal ku dul Mouhamadul Fa Cheikh Mouhamadul Fadal. Mm-hmm. ak Mouhamadul Amin. Cheikh Baara Amin sëñ Baara. Mm-hmm. ñi si seen ñëpp ay daaw la ndax ki ci mag fukki at ak ñeent laa mooy sëñ Abdou ak ku ku jur sëñ Basiru ak sëñ Baara ak Mouhamadul Fadal ñi si seen ñëpp ay daaw lañ. kon ñooñu nga xam ne nag moo war a taxawee seen taxawaay ci wàllu eggale seenum njàng mm-hmm. ci wàllu wàllu samp leen mm-hmm. ci wàllu defar leen ba tax kenn koo xam ne jóg nga nga ne ah doomi Sëriñ Tuubaa yépp ñoo yem loolu liggéey ci bokk na ci liggéey bi nga xam moom moo ko liggéey mm-hmm. kenn ku ci ne moo la taxaw ndax bi bi loolu jàllee rek la gaaw samp daara yoo xam ne Sëriñ Xabibu la jëri indi ko fa samp ko fa njabootu sëriñ bi mu jàngal leen ba ñoom ñëpp ñu nekk ay fóore nekk ay boromi xam-xam mu daal di leen di samp kenn ku ne wutal ab dëkk samp la fa mm-hmm. dégg nga xisa boobu ñu nettali ñu ni soxna may te te ak loolu yëpp ànd ak woyof lu koo xam ne kenn ku ci ne da lay jël teg la ca kaw di leen wax ni man seen taal web bàyyi laa dëgg la dégg nga xisa boobu ñu wax ni seen soxna may nee na bi mu bi mu xàmmee ci la soo ko kii seen mag la waaye moom dafa jàppoon ni rek seen taal web bàyyi la ndax da leen daan jox ñu lekk ba regg mm-hmm. mu jox leen yéreem neen fomp leen fii seen taal web bàyyi dongo la dëgg la xam naa ni sëñ Abdou Lahad ñu ñuy wax ni waxtu wi daanaka Eh, jett nañu. Mm-hmm. dëgg la li nga waajaloon ci sëñ Modou Moustapha. Mm-hmm. bari na lool. Mm-hmm. waaye maanaam waxtu wi moo ñu dab. te it xam naa ni sëñ Modou Moustapha ci boppam moo bari ay jaloore. Eh, lii danañu dimbali boo léegi ñu fexe ba. Eh, jël li nga xam ni mooy ndonal sëñ ndonal lim dondu sëñ Tuubaa. waxtaane waat ko incha allahu taala du ñàkk da nga fi ñëwaat ci yeneen jotaay yoo xam ni hmm. danañu àndaat yeneen waxtaan ndax hmm. kër gi moom ubbil nañ la ko hmm. sa kër saa boo bëggee ñëw rek mën ngaa ñëw eh, ànd ak ci jotaay yi eh, kon ñu ngi lay bàyyi nga wax eh, kàddu gu mujj gi nga xam ni bëgg nga ko wax ñu ñuy seetaan ñëpp ah, xanaa di siyaare mbooleem ñi nga xam ne rek moo ñu dégg ñoo ñu dégg di ñaan ni bi yokk bu baax a baax bañ dégg ko fépp ci àdduna te di siyaare di ñaan sama bàyyi subhanahu xare ko ajjana ndax moom sëriñ Moudou Moustapha lañ ko tuddee mhm. mu yar ko daanaa dégg lu bari muy wax ne laq naa ngërëmal sëriñ Moudou Moustapha di ko wat ca kaw am naa ci ay firnde it ginnaaw bi mhm. yoo xam ne dégg naa ko ci ñeneen ñoo xam ni duul moom te ñooña bañ koy wax daanaka xamuñu ne woon maa nga fa dëgg la wala boo ba ba jataay ba ma leen fekk daal ba xàmmeeku leen tax na ñu wax ma loola mhm. kon loolu yëpp moom ci ñi sëñ bi sëñ Modou Moustapha yóbbu tarbiya ko ca la bokk dëgg la moom sama wajur kon ñu ngi ko ñaan yàlla ma nga ci àlaxira ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala bu yëgg ko ci bar farsaxu Seydina Mouhamed boole kook turandoom ba amiin ñu ngi siyaare ñëpp di jégalu ci kàddu yi lépp loo xam ne daal leeru ci mm-hmm. xëy wax te wax ji ñu ñàkk fasaxa mm-hmm. waaye lépp loo xam ne leer na ci it ñu xam ne suñu borom subhanahu wa taala la ñu ñaan yàlla ku ko déggit lu ci muy loo xam ne ñun ñëpp daan ci jariñu ndax wax moom noonu la rek boo waxee ñi ñu xool la ci gën a ñu jëfandikoo la ca gën a kii ñu bàyyi ko ñu ngi jégalu ci kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëriñ Abdoul Ahad ji moom la ñu àndaloon tey jii ci waxtaan wi moom muy jàngalekat di imam fii ci parcelle mu indil ñu waxtaan wu am solo bii nga xam ne ànd na ko ak ñun ñu doon waxtaane jëm ni Cheikh Mahamadul Moustapha wax naa leen ni leen dafa bëri jalloore ba wet gu nekk boo ca waxee rek daanaka euh, da nga ciy bàyyi lu bare bari waaye incha allah télévision ma fatimul Bichri xam ngeen ni Euh, tàmbali nañu màggal gi ndax démb wax naa léegi ni leen am ngeen conférence bi nga xam ni sëti Cheikh Mamadou Moustapha yi ñoo ko doon def foofii ci Touba euh, du tey it suba incha allah am na ay jotaay yu am solo ak ay programme yu am solo yoo xam ne télévision ma Fatima Bichri yi dana leen ko andil ci màggal gi ngeen mën cee ànd euh, ak ñun incha allah ñu ngi lay gërëm sëriñ Abdou ci wuy si gi ak jàppandal gi nga jàppandal jotaay bi ba mu mën a am ñu ngi la ciy sant bu baax di lañ di ñaan yàlla euh, nga àggale li nga xam ni bëgg nga koo liggéey lislaam rawat na euh, liggéeyu sëriñ bi kon mbokk yi amoon nañu mbégte feggoo ak yéen ci euh, jataay bi ak waxtaan wi nga xam ne doon nañ ko waxtaane Cheikh Mouhamadou Moustapha di leen jox di daje incha allah ci yeneen jataay ci màggal gi incha allahu taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الجود والعفو مع المصطفى والآل والمولد صفي وسرت برد العناس الجود والعفو مع المصطفى والآل والمولد صفي